العينين أنتم كنتم في منازل الأولين أنتم كنتم أنتم كنتم في منازل الأولين أنتم كنتم تالت أنتم كنتم أنتم يين kuntum nekk antum yéen sama waa kër kuntum nekk ngeen fi manaasili awalina ca wàcc waayu gaa yu jëkk jihaadi lasiina gaa ña nga xam ni amartukum digaloon nañu leen bi jihaadi ci xare wa yuqatiluuna fi sabilillahi wa yuqatiluuna ñuy reyante fi sabilillahi ngir yoonu yàlla ويسفك دماءهم ويسفك من شور دماءكم سيني درس ذلك بايلا جي ريسبونسابيلتي من نحن ما كنا كذلك نمير تالت نحن ما كنا كذلك وحنا لنا انتم كنتم في مناسل الاولين الذين يعمرون بالجئات ويقاتلون في سبيل الله ويفسكم دماءهم من نحن ما كنا كذلك mu ne dafa jël ay responsabilité am kooku kat affaire bu am solo la ngir Moustapha fii la jaar yàlla daf ko ni yaa yu annabi jaahidul kufaar wal munafiqin wa waxlus alayhim wa ma yum jaal yàlla din nabi yow futtakul xeex yi ci awal yi bàyyi laay ñëw ne yéen di du ngeen ñoo ngir yéene kuntu fi manaasil awalina de waaw ñu ne waaw mu ne nax nu maa ku naaka saalika man xeexluwuma ñu ne ilaana amartukum bi jihaadi nafsi waaw li ma amoon na nuy def mu ne digal lu ma leen lu mooy jihaadu nafsi mooy lan antaksiru xawlu laa ilaha illa llah xanaa yéen daal seen jihaad bari leen laa ilaha illa llah qiyaaman bi taxawee wax leen ko di ngeen toogee léegi wax leen ko. wala junuubikum. bu ngeen demee ci la li wax leen ko. tafakkaruuna fi ayaati laay. ay tafakkaruuna xalam leen ayaati laay yàlla. na mu bindee asamaaw. wala di. ak suufi juróom-ñaar. yàlla ñaata fan nga bind loolu. suur ñaata fan. bi ayaamin àggal leen suuf ñun ni maa ñi ma tey tey ñu rëppatal de dañu jaabal dañuy rëppatal mu ne xalam leen ayaatu laahi ka xalq samawaati wal ard ni mu binde asamaan yàlla nag dañu cee defal njukkal boo jàngee saaru ñu am maya اما يتسالون عن النبي العسيم دفا وقت فوفني وبنينا فوقكم سبعا سدادا من وبنينا طبخ طبخنا فوقكم سين كوين نتني سبع سدادا جروم نياري تيراس وجعلنا مدفن لنشا سراجا اي لمفه هيجن يتك wa arsal naa ma wàcceel leen ca minal muxsiraati ca niir ya maa an am ndox sa jaajan muy sojtaku wa nuxurija pour ngeen génn ca abban pepp wana baatan ak gàncax waaw wa jannaati ak tool alfaafan yu yaatu bàyyi laa ne xalam leen yàlla ñu mu bind asamaan ak suuf ci juróom-benni fan. mataasi. bind na asamaaw bind suuf juróom-ñaari fan yéegaat juróom ci arasto. yuxsaale yow nahaar. yuxsaa calat defare te xale lay la guddi wannaara bëccëg bëccëg ñu mu woo faa fekk guddi guddi ñu mu woo faa fekk bëccëg ku nekk da ngay dox sa heure jàll sakkara mu tàggat moom yàlla sam sa wal xamara kullun yujri ila ajalin musamman limaamu laa yuqaala laa ilaaha illallaah aysu kuntum wax leen baab bi fu ngeen ne kon na xoolu laa ilaaha illallaah aysu kunna kon nag nu ngi koy wax fii nu ne ndax laa ilaaha illallaah qabla kulli shay'in ngir moo jëkk lu yàlla bind laa ilaaha illallaah بعد كل شيء لا إله إلا الله يموت baat la buy dund te du dee. lay lay la laay min faawul janna. mooy caabi tijji àjjana. lay lay la laay siraatal mustaqima. mooy yoon wi jëm àjjana. lay lay la laa xabiisul fi lisaani. woyof la ci làmmiñ wi koy tudd. lay lay la laa saqiirul fi lisaani. bu def la ci balance yi koy. yónnee ni man xaaral ay lay la laa. yàlla na ku ko wax wa man haaja udiman min diwaani sayaati ma mabba ci sa diwaani bakkaar arbaat wasan bina kabaayiri ñeenti junni bakkaar yunaadi munaadi tabawar am na koy waaju jaaras ayata jannatu looloo jinjar ji ci sa biir urul ay nit ñi ci sa biir tabax yi ci biir li man anta ñu ko moom ayaquuluna laa ilaaha illallaah aljanna ne xanaa ñu naan laa ilaaha illallaah ñoo fi jóg wa anna muharramun alaa man lam yaqul laa ilaaha illallaah muharramun lu rek ndeysaan wala déglu rek wa anna muharramun لمن لم يقل لا اله الا الله ليس لكن يغفل ممكن يا الالف الامير المؤمنين كيهد في سواق جفع جميل